door euh, Pape mi nga xamante ne bi moo nekk ci euh, régie bi ñu koy euh, gërëm bu baax a baax moom itam nga xamante ne bi moo fexe ba yëf yi yemb ak Abdou Khadre ci réalisation bi ay itam dañuy waxtaanee rek mbir moo xamante ne bi xam naa ni mu ngi continuer di def polémique Elage c'est vrai que waxtaanoon nañ ci keroog nga wuute muy mariage bu Sadio Mané Elage lan moo tax <laughs> Sadio Mané mariage am bi bëri coow est que moom coow lii la ci bëggoon Sadio Sadio du nitu bruit de non mais xam nga saajo nag tout d'abord dañ koy féliciter ah. parce que euh, yàgg gars yàgg nañ ko sànni xeer c'est coéquipier de l'équipe national mhm. di ko wax naan ko saajo takkal jabar fu ñu waxee Cheikhou Kouyaté borom ñaari galon yi sànni nañ fa xeer Sadio Mané ci Sadio jëlal soxna ñu ngi koy féliciter moom aussi de di ko ñaanal mariage bi mu doon mariage boo xamante ni ay ngëneel lay ñoo ko ciy fekk si. Euh, mu doon réussite mu am ci réussite total am ci njaboot bu barkeelan ah. mhm. dund ba moo soxnaam kenn gisul moroomam euh, no saajo maane nag moom Bamba xam nga marié naa keneen marié na mais day am une différence parce que bu ñu nee saajo maane dañuy naan kan mooy saajo maane saajo Mané on peut dire que ni euh, Sadio maane on peut dire que nii bon dans l'histoire du football sénégalais. Mhm. Sadio Mané def na ci loo xamante ni kenn mësu ko cee def. Euh, mu doon bon koo xamante ni on peut dire que ni bot na équipe bi am fu mu ko yóbbu ba tey jii l'année dernière voilà il y deux ans ci ginnaaw mu indil ñu trophée continental. non mhm. kooku nag mariage am mënta bokk ak mariage ak keneen. Mhm. tey jii waxuma rek Sadio Mané mais ni homme public moo demee noonu. homme public saa bu defee dara foog nit ñi wax ci. rawatina Sadio Mané mi nga xamante ni on peut dire que ni tey jii boo doon tànn tey jii les personnes les plus influentes au Sénégal doo tëb Sadio Mané boo tuddee président Macky Sall tudd Ousmane Sonko Sadio Mané nga ciy teg wala keneen comprendre donc mariage seen normal que mu créer polémique mais nag damay wax ni euh, jar na ko mais jaru ko parce que li tax ma ne jaru ko euh, Sadio Mané c'est un Sénégalais comme tous les Sénégalais. war a jël soxna war a takk soxna ci nin ko sénégalais war a takkee muy dem ñu dem maye takk jaar fi ñu procédure yi ñu war a jaar def ko ni ko sénégalais yi di defee mais c'est un comme ni ko sénégalais lambda bi di defee mais on peut comprendre nag li tax polémique bi bari aussi c'est parce que c'est une personne influente c'est une personne boo xamante ni il représente quelqu'un dans ce pays c'est man pour man loolu moo tax coow li bari ci mariage bi d'accord mais yàlla na ko jig coow. maam waalo ñu bari nee nañu ak ak ak coxor moo waral coow li ak euh, iñaan euh, bu nu iñaane xale bu jigéen bi moo waral coow lu bari parce que bu gisee ñenn ñi génn wax ku mel ni Adamo génn wax donc ne jigéen ñi dañuy soxor ñu soxore ki nga xamante ni mooy xale bu jigéen bi lii ko yàlla defal muy sëy ak Sadio Mané ndax Sadio Mané aussi ñu bari ñu ngi naan ay war doon a takk kii ki mu takk ñi naan daf nii la mel naa la mel deful xeef dafa lii posul donc euh, xale jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi def live yu temps bari live yu bari yoo xamante ni da nga koy gis ci TikTok bi xale yu jigéen ñi di waxtaanee mariage bu jàmbur ñu bari na ne ak soxorta ko lan la. de Bamba soxor si moom wax dëgg yàlla ma sama gis-gis mën naa ñàkk parce que nit ku nekk yaa choisir Sadio Mané sénégalais la doomu sénégalais la xool na sénégalais kon moom xool na jigéen bi ko doy. bi ko jikkoom day mu takk mu takk ko kon loolu soxote mën na cee ñàkk détail ci mën na ñàkk xanaa ku ko gis war kaa mën a ñaanal li bëgg ci sa yam yàlla defal ko ko man loolu laa ci gis mhm. mais soxote ma war faa mën a am te awru faa am tamit sax nag ndax nit ku nekk yaay choisir nit ku nekk yaay xool ki nga bëgg nga takk ko yaay xool kiy pose ay xef nga di ko takk yaay xool kiy def ay ay ay we nga di ko takk du dëgg moom nag moom moo xool ki deful dara ku simple koo xamante ne du meex du dara mu tax ko moom la choisir kon nag li ko nit war a mën a ñaaral li mu bëgg si sëyam yàlla defal ko ko rek problème bi loolu la wala. jabaru jàmbur El war nañ ko xool bay wax ay def na xeef ak deful xeef. Euh, non mais xam nga. moo ko wane nag bàmba. on est moo wane jabaram kat. moo ko takk wane ko. kon nag ku nekk di nga xool sa. waaw non mais xam nga xam nga mooy li ma wax rek. xam nga dama wax ne léegi ni Sadio Mané sénégalais la comme sénégalais yëpp bu war a takk soxna parce que Bambali gi mu dëkk ak Pikine gi ma dëkk ak euh, fi nga dëkk yow Géejawaay ku ci nekk boo amee mariage dañ koy célébrer comme ni ko sénégalais yëpp di célébrer donc c'est normal que mu ñëw def photo man mii bi may jël soxna damaa dem photo yi def loolu parce que c'est devenu une tradition mm-hmm. donc mu doon loo xamante ni pour man man gisuma ci rien de grave wala gisuma ci loo xamante ni pourquoi mu war a nëbbatu parce que c'est un sénégalais quant euh, nag def na xef ak deful xef ak def na lentille pour man xam nga dama li ma ciy wax rek mooy nit ki tubaab dafay wax ni c'est ce qui se ressemble s'assemble Sadio en personne boo ko xamee moom Sadio da xam ne c'est une personne modeste c'est une personne boo xamante ni kenn gisu ko ci parce que Sadio Mané damay wax ni l'histoire du football euh, sénégalais indiwul ku ma euh, ku am salaire bi Sadio Mané am. Hmm. donc si. Ah amul amul dans l'histoire du football seen. ñoom El Hadj Diouf ak ñun ñëpp moo non dama ne Bokandé. Umar hmm. Gueye Sène nga jaaree ko ci Fadiga ak ñoom ñëpp boo dajalee seen maanaam kenn mosu ci am salaire bi Sadio Mané am niveau bu Sadio Mané egg kenn mosu fa yegg. Hmm. on le dit te loolu les Sénégalais le savent comprendre nga. donc problème bi mooy mu waroon naa mën pour man pour man mënoon na def comme ñi ñëpp di def. mariage royal. mariage royal comme ni ko ñëpp di def fête ko jël euh, jël yot dem. ci géej gi def lépp dem King Fat dem jël yot dem def dugg ci géej gi et mais saajo Mané da ngay xool avant mariage bi est-ce que Sadio Mané doon na dund loolu dund dundul woon loolu daf ko dund comme ni ko sénégalais yi di dundee def na li def nañ li war a def mooy dem nañ jàkka. may nañ may nañ ko jabara est-ce que du moom euh, ni muy dundee moom noonu la bëgg soxnaam di ko dundee. Mm-hmm. est-ce que jëlul jigéen ju modeste comme moom. <laughs> pourquoi alxuraan la wàccere kaamil alxuraan la wàccere mu tax ko. waaw <laughs> mais loolu c'est normal parce que xamul tax xamul tax. Uh-huh. dafa dëkk ci dëkk boo xamante ni. loolu aada la fa. Mm-hmm. mooy alxuraan muy bambaali ku leen xam xam wala ku xam soose xam ni dañoo. bëgg alxuraan dañoo maîtriser alxuraan. donc li ma ciy wax mooy loolu aussi lu luñ koy féliciter la parce que Sadio Mané quoi qu'on puisse dire c'est un c'est un musulman jullit la ñëpp gis nañ ko euh, en Angleterre Liverpool mu nekk ci toilette kii bi jàkk ji di ko raxas donc kooku su waxee ni bëgg na diine mais c'est normal que dañ ko koy nangul mm-hmm. kon kooku bu jëlee jigéen joo xamante ni. Euh, wàcc alxuraan moo tax mu takk ko mais loolu day dëggalaat la mu defoon loolu doon def Liverpool mooy nekk ci biir euh, jàkk ji di ko rax man de wax dëgg yàlla su ma gisoon jigéen joo xam ne mokkal na alxuraan ba wàcc ko. Hmm. wax dëgg yàlla mu bëgg ma dinaa ko takk. Ah. waaw parce que xamul da <laughs> xamul tax xamul tax non xamul tax. Fatou sa kaw de. non non Fatou Mbaye wàcc yaa. bu jub sax mënu ko yaa ngi dégg. Euh, parce que damay wax benn affaire nit ku nekk ñaan nga yàlla am njaboot ñaan nga yàlla sa njaboot am euh, màgg ci diine. Mhm. te yaakaar naa ni jigéen mooy toog ci kër. Mhm. jigéen mooy ki nga xamante ni moo lay sàmmal sa njaboot ndax da ngay dem liggéey ji bàyyi ko fa. Mhm. donc kooku bu alxuraan nekk ci dënnam di diineem nekk ci dënnam mën ngaa dalal sa xel te xam ni li li nga yéene ci say doom. muy diine dekk ci ñoom wax dëgg yàlla mu war na koo mën a def ci ñoom. donc loolu pour man c' est pas un problème que ni dafa takk dafa wàcc alxuraan mu euh, takk ko par contre sax dañ koy féliciter ci loolu parce que bu ko neexoon def yenn mu am na ci joueurs yoo xam ne moo leen footballeur yoo xam moom moo leen ëpp xaalis. Mhm. mais la belle vie la ñuy la ñuy dund contrairement ak moom moom li mu am il des milliards par euh, par mois Sadio Mané il récolte des milliards par année. des dizaines de milliards par année. c'est que Sadio dafa simple rek ndeysaan. il a plus d'un milliard par mois. kon kooku bu ko par mois kon kooku bu ko neexoon mu dund la belle vie wala muy dem di def li moroomam yëpp di def. mais moom déraciné wul fàttewul li nga xamante ni moom la bàyyi woon ginnaaw mooy li ñu initié ci moom li ñu inculqué def ci moom. muy diine gi nga xamante ni mu ngi ko jëlee Bombali yóbbu ko Metz yóbbu ko Southampton yóbbu ko Liverpool yóbbu ko. Euh, Bayern de ba tey ji Al Nassr mu nekk. <laughs> Fama Kassé neen soxna na deux fois <laughs> ma sax def na vidéo ne euh, kii Sadio Mané maa ngi ko félicité parce que jabar xale. Mhm. Ah, jabar xale waaw. Ah, nee na jabar xale bu ndaw. Aziz Ndiaye Aziz moo wax ci yooyu. ah lu da war a dugg ci loolu tamit jabar xale. ah gaaruwaale aawam kat nag. ndax takk na aawam teg ko fi mu ko war a teg jabar xale. jabar xale. waaw seetaan naa loolu mais mais y' a des choses ko a des yoo xam ko waxee rek. ah dafa am fu koy féetale. bilaay deful dara d' accord je ne def na dara. Mhm. dafa wax joo xam ne xasee ba jib ñi du ñu xool ci bon côté bi dañu xool chaque fois le mauvais côté. donc gis naa ku mel ni la baronne Seck ñenn ci internet yi di génn naan Aziz Ndiaye war ngaa régler bala ñoo wax kenn amul loo ko waxal donc yooyu yëpp da ngay créer as ay ennemis ku koy doo ko waxal lenn parce que moom defu fi defu fi lenn waxu fi lenn mais gaaruwaale non ci kilif pourtant gaaruwaale Bamba jabar xale jabar xale yow yaa ngi ni ñëw ñaanal nga euh, kii Sadio Mané kii ñaanal na ko man tam ñaanal naa ko moom tamit dafa ñàkk ñaan rek def vidéo daan ne Sadio Mané maa ngi lay félicité non Sadio parce que booy takk jabar da ngay takk jabar xale bu ndaw waaw non Sadio Sadio moom ku nekk war na ko félicité ah mais tamit parce que bu dul dara bu dul dara Euh, nit la koo xamante ne bu dee benn bis bégloo na ko Sénégal yëpp kon 18 millions de Sénégal yëpp ñoo ko de war a delloo njukkal. félicité mu ngi noonu waaw. ñi wax naan waru woon a takk jabar euh, ci veille kan kan bi nag. waaw bon xam nga tamit man li ma ci wax aussi mooy hmm. dama euh, daf ci am noo xamante ni waa léegi footballeur yi dëkk ak seen jabar nag. waaw mais footballeur yi dëkk ak seen jabar daf ci am yoo xamante ni. Euh, jarta sax ñu di ci polémique. kan bi de mu fa def dañ parce que pour man hmm. pour man professionnalisme bi nekk ci Sadio Mané ak euh, ku nekk xam na ni Sadio Mané li ko équipe nationale jaral ak li muy def ngir équipe nationale pour man à quelque jours du match du sacrifier équipe bi et puis Sadio Mané kañ la rejoindre groupe bi mariage bi c'était le week-end dernier Sadio Mané démb mi ngi woon au palais présidentiel remise de drapeau bi donc daf am yoo xamante ni buñ ko déstabiliser pour man. parce que on est à quelques jours euh, du match contre la Gambie donc am na ci loo xamante ni pour man sax aussi loolu mënu koo mm, déstabiliser parce que mentalement il est fort parce que fa mu nekk tubaab yi peut-être préparé nañ ko parce que am na ci centre yoo xam ja jaar na fa préparé nañ ko et donc am na ci loo xamante ni nañ ko bàyyi mu préparé kaanam li nga xamante ni war na ko euh, mu def ko ba la ñu dal la ñu amoon euh, à la CAN 2021 ñu amaat ko ren. alors mi ngi noonu euh, El Hadj Mbaye donc voilà euh, ba tey dañuy euh, wax ci loolu la ñuy desandi ba léegi à que am na leneen loo xamante ni war nañu ci waxtaan bu weesoo mariage Sadio Mané ak polémique bi nu ngi ci bëree xam naa ne naam loolu neexu ko woon bu ñenn ñi di wax naan xaj na mbirum jalousie la ñenn ñi dinañ wax ni allah kulaal Sadio Mané moo ni toll te itam ñu bari doon doon xaar mu takk soxna moo tax bi mu takkee soxna. xam nga xam nga Bamba. Mm-hmm. jalousie ak soxor bokkul. Mm-hmm. bokkul tu peux te doo méchant. Mm-hmm. parce que jalousie nit ki eh, xam nga bari na nit tey ji dama la jox benn exemple bari na nit lu muy def soxnaam nit eh, rey na soxnaam sax ba pare toog di jooy parce que jalousie moo ko fa yóbbu jalousie boo gis nag preuve d'amour la yaa may dégg jalousie du soxor. mais nag mën na emporter nit ki à ce que mu def ko nëri wala mu wax ko donc li may wax foofu ci jalousie euh, boobu nga ñu nga xamante ni wala méchanceté boobu nga xam moom la ñuy wax ci ji euh, xale yu jigéen yooyu man li ma ciy wax encore une fois mooy Sadio Mané ko ñoon am borom kër bu mel ni moom. parce que tout d'abord c'est un sénégalais boo xamante ni sénégalais la bu koy dund nag li tax ma la bu koy dund mooy déraciné wul tey jii ba tey si ay racinam moom lay topp. tey jii gis nga ne mu def dëkkam ku ko gis xam ni déraciné daa fonk réewam moom. yaa ngi dégg donc kooku boo amee jëkkër joo xamante ni nag yàlla teral na ko mu macha allah mu am lu mu denc gus néew yaa ngi dégg ba pare am diine bokk ci dëkk bi. xew xew euh, Sénégalais yëpp respecté ko wax dëgg yàlla ko sañoon am. jëkkër ju mel ni moom. Euh, wax dëgg yàlla takk ci takk bu simple. waaw mais simple takk ko ci xaalis. non wut ne man mi kat damaa. am li wala ma am li dafa xool ne dafa war a takk jabar mooy mooy li may expliqué takk jabar mooy dafa xool ne kat man mi kat toll naa si takk jabar takk jabar takk na jabar mooy li may expliqué rek xam nga tey jii boo demee les grands footballeurs les grands footballeurs booy seet lu ci ëpp ay mannequin la ñuy takk ay actrice quelque chose comme ça boo jëlee tey jii bu ñu reculer tuddi David Beckham kan la takkoon Victoria Victoria Spice Girls la nekkoon gis nga jabar Cristiano Ronaldo euh, je peux euh, citer ñu baree baree baree baree comprendre nga mais moom il a fait son choix son propre choix moom moo de choix respectons nag ce choix parce que moom en personne nit ki kenn du ko tànnal ki mu war a takk. Mhm. nit ki moom mooy tànnal boppam. li nga xamante ki muy takk. Mhm. Mhm. parce que qualité yi mu gis ci moom ba takk ko. peut-être que ñu ñun xamuñu ko ci moom. te j'espère que ni Sadio euh, il a grandi au Sénégal. Sadio màggeewul euh, en Europe pour ñëw ñu takkal ko fi jabar Sénégal la màggee. jaar mbuur ex ak feneen ak feneen ak feneen xam lan mooy réalité Sénégal ak xale yu jigéenu Sénégal naka la ñuy dundee la majorité je veux dire donc ku mel noonu bu demee ba déporté choix am ci benn xale bu jigéen ci koo xam ne sénégalais nga màggee fi yaroo fi defee fi lépp loolu dañ la war a respecter sa choix te xam ni Sadio euh, quoi qu'on puisse dire du doful aussi c'est ça loolu lay wax am na droit nag takk ki ko neex mais nag jabar lu ñuy tànn la parce que tamit damay wax benn affaire jabar du euh, nit ki dinañ ko respecter ci soxnaam parce que tey jii toog nañ fi ba tàyyi di nit toog ne jigéen sàngam gis nañ ko mu ànd ak jour sàngam ànd ak jour sàngam ànd ak jour sàngam comprendre nga dégg ay révélation yoo xam nit def nañ ko ci ay jigéen yu nekk fii ñuy ànd ak ay célébrité est-ce que Sadio Maana seetaanul loolu wala déggul loolu ba tax tey moom mu dem jëli xale boo xawante ni xamul dara moo takk ko ngir ngir lan sauvegarde image am parce que nekk aussi dañ koy respecté ci jigéen ju muy àndal c'est ça. merci beaucoup El Hadj Mbaye alors <laughs> benn pàcc bi ñuy waxtaanee waat mooy vraiment euh, ci mariage bi la ñuy des sax ba léegi Selbé Ndom li mu ciy wax. Euh, fi mu nekk nii mi ngi jur polémique nag parce que salle bi moom dana woon carrément Zeyna Ndour mooy doon ki nga xamante ne bii mooy mooy mooy gisoon na sëyam sëyam Zeyna Ndour ak ki nga xamante ne bii rek mooy euh, Sadio maane bon c'est vrai que depuis boobu suñu yaay ji salle si yaa ngi koy relaté waat et tout donc moo tax parfois aussi seet itam kenn xamul lu mu doon rek donc mu ngoogu bopp mais euh, liñ ci gën a neex rek mooy gis nañu Zeyna Ndour félicité na Sadio maane donc ñoom ñaar dañoo amoon relation wala fansam la woon quoi qu'on puisse dire gis nañu mu posté ci ay page Facebook comme félicité ki nga xamante ne bi mooy Sadio Mané kuñ gis dem wax ji noonu la ko toppee moom itam ah, ba ñu bëree ngi génn di ko ñaawal wala vraiment di ko critiquer wala ko xaj na ñëpp ay fans la ñu woon ci Sadio. waaw ñoom ñaar ñoo bokk Casamance c'est normal. ñoo bokk Casamance am na droit félicité ko même bu dul ñoo bokk Sénégal ma j'ai j'ai tout à l'heure que ni Sadio Mané képp kuy sénégalais. Hmm. wala képp kuy africain. war nga koo féliciter ngir bu dul dara am na ci loo xamante ni xam nga nit ki damay wax ni amul lu dul bésam Bàmba. Mhm. am nit ki nga xamante ni nag bésam la am bésam bu fekkee ne lebaloon na la lu baax da ko koy fay. Sénégalais dañoo waroon a dem. ba changement Sénégal yëpp dañu waroon dem parce que le 6 février 2022 dañoo bégal dañoo bégal kooku Sénégal dañ ko waroon delloo njukkal <laughs> amaana nag ñëpp dañ dul xaj bombaay yi mais ku nekk waroon ngaa def vidéo félicité Sadio Mané parce que il le mérite xew mi dañoo waroon xew national la ko waroon xew national la dañoo waroon jox journée chômage et xew mu simple la def ah mais moo normal <laughs> simple maa ko bëgg dama ko bëgg parce que xam dama dama bëgg man nit ku simple mm-hmm. te vraiment loolu exemple la exemple la ci la wone ci képp koo xamante ni célébrité nga mooy soxna dañu koy tànn pour man te il a fait son choix te j'espère qu'il a fait le bon choix c'est ça parce que doful aussi. soxna da dañ koy tànn mais tamit mën ngaa tànn si soxna si la neex ngeen say yéen ñaar wala nga ne kii kat day muuru. Hmm. kii nit ku baax la. yaa ngi dégg baax yow Alaañu Mbay. Hmm. boobu ba léegi yàgg naa soxna dañ koy tànn dañ koy tànn dëgg la dañ koy tànn. mais nag mën ngaa tànn nit li nga li nga li nga gis ci moom nekkul ci jikkoom. waaw noo xam nga. mën ngaa fekk tamit nit ci mbedd. wala mu am beneen comportement boo xamante ne ni kat kii yu daal correct nga def ko rek ko ba mbaax teg ko ci sa biir kër. kon li ma wax keroog rek li Thiat sekk naan kenn bonut kenn du gis sa moroom ba ne maa la gën moo fi nekk jigéen moom ak nit kenn mënu koo xam nit kenn mënu koo xam nit moo la ndëm maam Aram boo amoon sa frère mu war a jël soxna bëgg jël soxna soo xamante ni yow xam nga ko am yow en personne xam nga ko xam nga ni day jàdd gauche doo ko seetaan mu ciy dugg. non non mën ngaa gis gis kiy jàdd gauche nga jël takku teg ko sa kër te mu nekk ci. gauche bi nga bëgg. maam waalo maam waalo daf ci am loo xamante ni. nit xanaa xam ne jaamu yàlla mënut a weesu sax am na yenn yenn seen sa yoo xamante ne nii. mën naa dugg si da day day waat am na yenn sëy yoo xamante ne ni nga fekk jigéen fenn tax ko. non loolu je suis tout à fait loolu loolu yàlla goo xamante ne ni loolu. jaratul ngay julli jaratul ngay woor. waa mais attends. parce que jigéen mooy mooy yaay. attends mais dafa am dafa jigéen moom mooy lépp. xam nga dañuy waxtaan. du dëgg dafa am loo xamante ni. voilà nit kii su ma nee la non su ma nee la Bamba su ma nee ko non je ne dis nii. ah mën ngaa def sa mini bu gàtt def sa baabu gàtt Alaaji Mbay barke Alaaji Fàllu nga gën kii ibaadu bi lu garaaw laa lay wax. nit nit mun na koo xool ci julli. non non nit mun koo xool ci moom nit na koo xool ci leen gis nga nit. Pape d'accordul de Pape mi bi d'accordul. ah a gën tubaab. non a yow parce que xam nga c'est que la choisir te da koo bëgg rek. noo maman maman la yow déglu ma yow mi bëgg yow mi ko bëgg. bul xool mini bi bul xool baa bi bul xool tuwee ji. Mm-hmm. xoolal na kii dama ko kii dinaa jaamu ci moom yàlla. jaamu ci déglu ma rek am ah, kay jigéen a gën a neex a soppi nag. baax na jigéen moo gën a neex a soppi surtout jigéen. ak ku bëgg saa yu tàmbalee soppi xale yi ñu ngi muuru def mu nekk. <laughs> xale yi mburu na gëmuñu seen bopp de non xam nga su ma lay wax naan la su ma lay wax naan la gis nga <laughs> euh, image. Mm. dafa am solo ci nit. te damay wax ni nit da ngay wutal sa say doom way wu rafet. Mm. wutal say doom way wu rafet nag weesuwul ci taal tànnal leen yaay ju baax. Mm-hmm. maa ngi profité de passage di gërëm Marème Sène yaayu Fatou Baye. yaa ngi may dégg dama lay wax benn affaire mm. ne la yaay dafa am solo ci doom. gis nga nit waroo takk koo xamante ni ëllëg dana wutal ay doomam xas xam nga wutal say doom xas mooy lan jabar joo xamante ni par exemple xam nga je peux comprendre une chose nit ki di nga ko di ngeen woo yéen ñaar nga di ko nga di ko doxaay ni dem këram di toog ak moom benn une de temps génn ñibbi jikko ji nekk ci moom mën na la koo nëpp waaye waaye sëy moom. non jëkko sa du rëbb. non may ko du rëbb de xanaa yow mi bëgg. yow yaay xool kii jikko ji nekk ci moom. neex na non d'accord ma ànd ceeg moom neexuma maa koy dindi ba mu set. waaw non dama lay wax jigéen lu nekk ci moom rek yow mën bëgg nga takk ko. Mhm. bu amee jikko mën na la koo nëbb. Mhm. ndax jikko jooju boo ko gisee ci moom du ko takk. Mhm. doo ko takk waaye laps de temps bi ngeen di toog mën na laa nëbbu jikko yi nekk ci moom. waaye jikko yooyu tôt ou tard day day day day yeewu li tax muy yeewu mooy dama lay wax nit rek bu ngeen dëkkee yeen ñaar bu ngeen rusante woon tey ji mhm. lu ngeen rusante rusante euh, tey ji bokk benn néeg di fanaan bu yàggee jikko yi feeñ xam nga lu tax parce que dëkkin moo demee noonu jikko mënta nëpp mhm. comprendre nga mhm. mais daf ci am loo xamante ni yaay fam li saa neex naan meew moo nàmp ma toqantal ba nu mu ko waxee mais dama la bëgg a expliquer benn affaire ne la yaay dana indil way wu rafet doom la preuve mooy tey jii suñu sëriñ si fi ne tey jii boo leen di tagg seen yaay ngay wax dëgg la wala du dëkk parce que seen yaay yi ñoo ko liggéey. gis nga amaana sax duñu ah, tënk seen bàyyi doon yaay yaay du mos a bon ci àddina. amul benn jigéen non yaay day bon. non non astafurlaa. xam nga lu yaay day bon. neen astafurlaa ndax ah, wuyu ma alaaju mbay. jigéen la la juf yaay du bon. no xam nga maam waalo. déglu ma rek. perfection ñëpp mënu ñoom. Euh, non non euh, yaay mënul bon. waaw da nga may déglu ma wax la li tax loolu. xam nga dama lay wax nit. gis nga ki jur doom sax. ba dem ba dénkaane ko war ko ca. Mhm. wala mu fekk ko ca sax taxut mu bon. waaw non danga may déglu xam nga dama lay expliquer. xam nga man kan kaa cause ban jigéen laa mënut a considéré. Mm. kii jur doom ray ko. kii jur doom ko muy. xëy kooku du yaay ju bon. Ah, man ko non loo gis su nekk rek xeet la ak ñàkk encadrement bu baax tey boo gisee góor bu baax gu la téye di ko di nga ko sëyal te yàlla tax kon benn jigéen bonut bu kenn xool kenn di ko gisee ci lenn. maam Waalo Bamba. Sadio Mané pour man. nit sax warta toog xam nga nit damay wax benn affaire ñàkk maturité wala ñàkk xam-xam wala ñàkk xel warta euh, weesuwul nit jël soxna def choix am nga ni kii warul woon def choix bii ci moom donte sax bu takkoon ku ku bon. kan moo ne warul woon def choix boobu. non xam nga dañuy di ab y a certaines yoo xam dañuy wax ni euh, warul waroon naa takk ku gën a nekk high level euh, kii. kim takk dara newut ci moom. non. xale bu rafet la takk xale bu xale bu yem la takk mais lan moo tax mu takk ko xam nga dama lay expliquer benn affaire on attendait que Sadio Mané takk benn miss boo xamante ni wala benn man gis nga gis nga kii non loolu mooy suwaa loolu mooy suwaawam gis nga tey jii kon yow wuy si nga ma ci am na xale yoo xamante am na xale yu góor yoo xamante ne wii su meer lañ bëgg ah bon waaw wii su meer lañ bëgg ñii di yanke ñii di di ñii di yanke faat lañ bëgg am góor ñoo xamante ne xale bu tuuti lañ bëgg ah. Sadio Mané nag moom moo choisir xale bu tuuti ba Aziz Ndiaye jàppale ko ci ne jabar xale kon nañ ko bàyyi sëy bi nag yàlla may ko ci ndam nag ak ak njaboot gu barke. mooy li may wax. xam nga li ah, xam nga li may wax. ku nekk ak sa choix xam nga li may wax mooy choisir na jabar Sadio Mané lijjanti na ba defar image yam ci réew mi. jeex na ëllëgam lay di jéem a defar xam nga ëllëgam mooy lan mooy takk jabar ju baax am ci ay njaboot gu baax ki mu takk nag amaana. peut-être que li tax mu takk ko moom xam na ko peut-être que wax nañ ni wàcc na alxuraan peut-être gis na ci moom diine paraît-il ñi ngi wax ni sax euh, doomu entre je sais pas architecte am la. doomu architecte am la ki ko gérer bien ko gérer bien mi. kon kooku on peut dire que ni xam na ko. bien xam na ki mu takk <laughs> xam na ki mu takk. xam waa xale yi boo yoree takk koo xamul musiba la de. musiba la. dama lay am xam ne seen jabar leen ruiné mais bien sûr. wallaay Emmanuel Eboué. ak ñeneen a fii au Sénégal am na joueur boo xoolee Achraf Hakimi ni ko ni ko jabar ji bëggoon a def hmm. dem ba di ko demander divorce pour lan oh, ñu seddoo ay bien yi ndekete Achraf Hakimi bien mi yëpp ci turu yaayam la ko def turu yaayam la ko def dañ ci am ay expérience nag dañ ci am ay expérience léegi nag da boo takkee koo xam ne innocente la xamul lu bari koo xam tey tam xam nga ko xam waajuram te xam nga ko xam waajuram ah, xam nga ni tey jii ma wax la benn affaire Sadio Mané bu demee. xam nga jëkkër fu ne lay feeñoo nit. waaw non ba xam nga Bamba ki dem ba takk doomu architecte am. wuy ma kooku xam na architecte am. nit ko xam na ban genre nit la. dañuy wax ni wax ma ku la yar ma wax la jikko sa jikko comprendre nga xam na ni euh, c'est une personne responsable papaam nit ku responsable la. xam na peut-être éducation bi mu def ci ay doomam. même bu dul loolu sax moom moo ko gis bëggal ko boppam xol la yor comme ñëpp. loolu dañ ko koy respecteel dañ ko koy nangul keneen ku mu mënoon takkit wala kuñ ko mënoon buuxit te bëggu ko du safe xam nga importance bi c'est pas la beauté qui compte xam la mooy compter mooy jigéen ju baax te j'espère que ni ki mu takk nit ku baax la parce que nag pour man damay retourner waat ci li ma waxoon rek du dof c'est ça. comme que du dof nag yal na ko yàlla jàppale soxnaam ci barke Seexu Xaadim loolu la ko ñëpp di ñaanal. loolu la ko di ñaanal te gars yi nag. Mm, bàyyi euh, soxor gars yi bàyyi soxor mais dafa leen dal léegi ñi ñi ñi jaloux nañ